bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala wa sahbihi wa man wala asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu arrahma ñu ngi leen di nuyu dafa seeni dikkaat ak yéen ci seen émission bi nga xam ne moom la ñuy amal chaque samedi ci waxtu wi di ci ànd yéen ci téere bii di al awaliya ñu ngi ñaan képp koo xam ne déglu na ko rek mu def participation am ñu xool ba xam ndax euh, xam na ko comprendre na wala déet koo xam ne déglu na su fekkente ne xamagut tamit mu laaj kon bismillah ñu ñëw ci émission bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi kon daa mel ne bind bi weesu ñoo ngi wan ci bindum ñetteel bi ci téere bi ñu tollu ci alkutubu war rusul man hum rusul ana ñan ñooy yonente yi loolu moo doonoon laaj bi tontu bi moo doonoon ar rusulu yonente yi alayhimu salaatu wassalaam na sunu borom def ci ñoom xéewal ak mucc unaasun aw nit lañ ñoo xam ne arsalahum yónni na leen allahu yàlla ilannaasi ci nit ñi li yursiduhum ngir ñu jubale leen li turuqil xayri ci yooni yiw wayanhuhum ñu tere leen an turuqi charri ci yooni ay maanaam yoon yu baax lañ leen di jubale di leen tere yoon yi bon awaluhum ka njëkk ci ñoom aadama muy aadama wa axiruhum ka mujj ci ñoom nabiyuna sunub yonente muhammadun muhammad alayhim salaatu wasalaam yàlla na sunu boroom def ci ñoom xéewal ak mucc loolu moo doon sunu bind bi weesu kon ñu ñëw ci suñ bindu tey maa huwa alwaajibu fi xaqi rusuli alayhim salaatu wassalaam maa huwa ana lan mooy li nga xam ne alwaajibu mooy li war fi xaqi rusuli ci aq yonente yi alayhim salaatu wassalaam alayhim yàlla nekk ci ñoom assalaatu xéwal wasalaamu ak mucc maa huwa ana lan mooy li nga xam ne alwaajibu mooy li war fii xaqi rusuli ci àqi yonente yi alayhim yal na nekk ci ñoom assalaatu xéwal wasalaamu ak mucc loolu mooy laaj bi tontu bi mooy alwaajibu la war fii xaqi rusuli ci àq yonente yi alayhim yàlla na nekk ci ñoom assalaatu xewal wasalaamu ak mucc loola day arbau sifaatin ñeenti melo la yoo xam ne dafa war ci ab yonente nga xam ne mënul ñàkk képp koo xam ne ab yonente la rek dafay làmboo yeenti melo yi kon déglul bu baax te teewlu ñeenti melo yi ban ban la wax ñoom asiduku mooy dëggu dëggu melona woo xam ne ab yonente munu koo ñàkk melowoo maanaam ab yonente du wax lu ëmut dëgg rek lay wax al amaanatu koolute koolute aw melona woo xam ne ab yonente munu koo ñàkk melowoo ab yonente du wor du digle dara ba noppi di def lu safaanoog loola waaye du tere dara yi ba noppi di def loole muy tere kon al amaanatu kóolute aw melo la woo xam ne ab yonente mënu koo ñàkk melo muy ñaar atabliigu jotal mooy jottali liñ ko yónni ba mat sëkk ab yonente du doganu liñ ko yónni di wax lii di bàyyi la ca des lépp lay jotli lépp lay jottali kon ñett yooyu ab yonente mënu koo ñàkk melo woo alfataanatu xellu am am xel mu mat xel mu rëy ab yonante du doon koo xam ne dafay dese dafay dof xel ma di manqué wala yu mel noonu loolu du dal ab yonante waaye day am xel mu mat sëkk kon yenti melo yi ta ñàkk ci ab yonante yenti melo yi mooy ban ban as dëggu al amaanatu kóolute at tabliigu jotal liñ koy yónni al fataanatu xellu wala yuusafoona kenn du leen melal bi iddaadihaa wala bi addaadihaa ci safaanu yooyu maanaam melaw yii ab yonente du melowoo safaan bi maanaam asiddu xu mooy dëggu safaan bi mooy fen fen ab yonente du ko melowoo al amaanatu wóoru safaan bi mooy wor wuruj ab yonente du wuruj a tabliixu mooy jotal safaan bi mooy alkitmaanu nëbbu ab yonente du nëbbu alfataanatu mooy xellu safaan bi mooy asafahu mooy dese maanaam nekk boroom xel mu manqué mel ne dof kon loolu ab yonent du ko melowoo mooy melo yi nga xam ne mooy melo yonent te mooy asidduqu dëggu al amaanatu wóor a tabliixu jotal alfataanatu xellu wala yuusafoona kenn du leen melal bi addaadiha ci seeni safaan mu la safaan yi waxee ñoom alkadibu mooy fen alxiyaanatu war alkitmaanu nëbbu alxaflatu càggante càggante mooy koo xam ne xel mi day rëcc mooy mooy dese rek salaamaaleykum wa rahmatullah